Salut les amis de Sport TV, merci encore Gaël de la confiance en nous voler, merci de vous des likes, merci de vous des abonnés, merci également Gaël de baisser les commentaires, hein. un plaisir voler chaque fois de partager une information. inbox sénégalais fait pour le Montenegro, 14 régions du Sénégal, rokulu xaari gongo xaari ni ngi leen di jaajëfal également ci l'hôpital hôpital yi ci kër yi tëdd feebar yàlla na suñu borom fëgg seen bopp ngeen wér ak jàmm ñi ci kaso yi ngeen xam aussi erreur judiciaire ak génn ñu deful moo leen fa yóbbu suñu borom génn leen fa delluwaat leen seen njaboot ñi dëddu àdduna suñu borom xaral leen àjjana fi aussi gars yi te yéexee ñu on avance ensemble dans la magie de Sport TV

joueuse bu Nigeria ñom nak ñu ne def daal bataaxal di jébboo ko xam mooy seen fédération né nañ leen fay seen xaalis prime im xam nak moy mom lañu yoreel dal daal fi mu ne loolu lañuy kaas jamono ji gëna bi nga xam dañu éliminer ci éliminé ci huitième de finale coupe du monde yi ñi nak di wa Red Star gars yi bi mooy seen maillot bu bees bi ñom nag seen maillot nag intelligence artificielle lañu lañu la utiliser pour mu tànnaleen ay mayo en base sur sur la base de ay photo yu ñu ko jox yépp ñu ne ko leen créer mayo donc ben machine intelligence artificielle mën na ko créer ki nak gars yi mooy maillot bu wa Liverpool troisième maillot mayo ngi maillot seul bu Liverpool bi ni le mel donc mi ngi nii comme je chaque fois rek on vous donne les informations li nak moy gay stade bi wa FC Barcelone na la footballé ren jii ah, donc stade bi gay mo wara war a trophée Gamper ah, donc fi mu ne nii waa Barça léegi le temps que Camp Nou da di pare kii Darwich en provenance. de, du Bayern Munich. Boy bi dal ñu signé contrat du côté donc euh, de euh, du FC Barcelone. Hein, ah, fait ci ñom Mikel Ngor Fay n'a nak gay que dit euh, Ferran Torres. Boy Ferran Fouille <laughs> gars yi période moom daa yàqam di sax nee na fi ne nii numéro 7 bi la bëgg a jël. numéro 7 Barça bi dal lo bëgg a récupérer daal fi mu ne nii loolu dafay dal Drogba di wax il veut récupérer le numéro 7 Barça tamit ba légui ñi ngi ci Neymar mais nag selon les dernières informations ne rumeur la ñom néna ci ni ne lañ bëgg mooy que ne Arabie Saoudite notamment Al Hilal bi nga xamné ñom ñoom dañoo essayé Mbappé ak Messi doxul dañoo bëgg jënd Neymar mais buñ ko jëndee aussi day am clause bo xam day permettre Neymar ren mu dem jouer fa nga mooy ci Barça di déwén mu daal dem ci Al Hilal loolu dal lañu lañu ñu la gars di wax comme rumeur mais c'est pas encore confirmé ce qu'on peut confirmer actuellement mooy que ne Papa Neymar ne na

oslun également mom nak malheureusement dafa am ay problème de dos hein ah, dafa ag xawa gañu légui nak gaay nañ mënu fu wol mais mënu fu wol à 100% donc day fay walé mais aussi même kii daxa Eric Ten Hag wax waxu wax na né worugul mu daal di démarrer li nga xam prime league bi Wambi Saka na gars gagné na ay points yu beuri ay waji ji da sakal bopam yoon dé maa ko wax Wambi Saka sakal na bopam yoon patan fi né ni Eric Ten Hag né dafa content yi dafa bëgg sax ñu prolonger ko waxtan yaa ngi jib kii nag di Eric Bailly mom mo Manchester United dañ ka bàyyi bàyyi nañ ko fan la jëm di côté de l'Arabie Saoudite la ñuy wax ndax ñi di waa Al Nasr daal ñoo ko bëgg jamono ji ñoo ko bëgg nasaale yóbbaale comme nañ def ak Sadio ak ñoom Cristiano Ronaldo Manchester City ñoom it également ñoom gars supporter Manchester City xam naa loolu ne leen neex dañuy waaj benn film boo xam ne day wax ci parcours saison exceptionnel bi nga xam ne Manchester City def na ko daaw donc loolu nag ab film la boo xam ne ñu yi ñu ngi koy tourné <laughs> <laughs> tugal mer la de tugal gars yi ki nga xam moy mooy Kyle Walker da ka mbiw ndax Kyle Walker daw weer bi passé bok plutôt mois dernier dafa dal di waxon tuxal tamaan tuxal ne ko day ñew di côté de Bayern tuxal def ci yaakaaram bu bëri fi mu ne nag waa Manchester City surtout Guardiola dem invité boy bi yobu ko restaurant wax ak moom gars ne fi ne ni ki dal di Kyle Walker prolonger contrat lay waji jégué sax di côté de Manchester City benen bi nak moy que ne tey jii mo wax len ko tay ah, tey ni nii Bayern day def dernière proposition 110 millions lañ wax ak ay bonus léegi nak ñom aussi ñom ñoko def waaye nenañ ki kii di Daniel Levy moom ku ko fayul 150 millions dula jaay ki nga xam moy ari <laughs> Harry Kane te Levy fas yéene wu leen ko jaay mais nak comme je dis au football rien n'est rien n'est définitif au football attention au Bayern ñoom dañuy def seen proposition tay mën nañ ko accepter et j'espère que dañ ko accepter parce que aussi comme on dit Bayern aussi c'est un grand club même bu fa Sadio Mané nekkul et tout mais Tuchel mom fi ni néna gaay li nga waxon li ñu ko waxoon ñu ngi commencer ñu yel wa commencé quoi <laughs> mais gars yi wax naa ne ko nag waree dem na kën waxi mag dem na nañ war na mbaam diggante ki nga xam ne nag mooy donc Raya ak di gardien emblématique actuellement de d'Arsenal ah xam ne gars yi fi ne nii ah Ramsdale jëlee ko fa du yomb de waaye daal Ramsdale moom day romb daan fi ne nii nag moom Raya Raya egg si na donc ñoom ñaar nag ñu nar a concurrence te kat moo gardien numéro un malheureusement aussi va pour ki kii di Victor Osimhen dafa daal di gaañu entraînement ci cheville bi la daal di gaañu donc fini ni dal gaay daal gars nañ daal nouvelle yi ñëk neexut lo dal lañ waxagum donc mom dal dafa mel championnat bi bu féké né confirmé nañ ko won na def yeneen test IRM que né ndorteel championnat bi ko féké ki nak di José Mourinho né ko kenn yapp bu ko kenn yakal né na match ci demul tay demul suba demul ginaaw suba demul ginaaw waat suba ginaaw <laughs> suba marché day toog waa AS Rome nee nañ démentir nañ nee nañ benn proposition yegsiwul seen table te bu fa yegsiwul aussi jaayuñu tey jaayuñu suba jaayuñu ginaaw suba jaayuñu ginaaw ginaaw suba bu yeboo nag ku reer woon nga fande ji ndax ñoom daal jaayuñu loolu la ñu wax kii nag di dinañ Zakaria le joueur également de la Juve nga xam daal dañ ko al Chelsea fi mu ne nii nag Monaco moo ci nekk di ci sëgg et que mbir yi sax ñu gën a avancé nee nañ li ngi wajé djégé ci walum déggoo pour Zakaria Denis Zakaria daal di dem du côté de l'AS Monaco un joueur très talentueux mais dafa amul chance xale nak mais dafa amul chance ki nga xam nag également moy donc Youssouf Fofana momit it donc Nottingham Forest bu ñoom euh, Moussa Niakhaté ak ñoom euh, ki di Cheikh Kouyaté ñoko bëgg dafa ko proposition waaye mom dal da lank da lank gum mun wax da lank gum am na yeneen proposition yu West Ham ñi ngi fi et tout mais mom dal lànkagum na bu Nottingham Nottingham Forest bi on ne sait pas ndax dafay mujj wax waaw ou pas ñi na gars ngeen gis moy les seuls joueurs de l'histoire du football yo xam gagné nañ 5 Ligue des champions wa Real yéen ay tay donc seen joueurs yi ni ngeen di gis ni ah tàmbale ko ci Isco ba ci Carvajal ñi ñoo gagné li nga xam moy mooy donc euh, cinq ligues des champions dans l'histoire du football mais aussi dans l'histoire de la Casa Blanca ñi kessé ñoo ko fa gagné képp rek. donc ñoo gagné juroomi ligue des champions ngeen gis CR7 ci ginaaw ah gis ñom Marcelo entre autres pendant ce temps également Mbaye Amady moom nag gannaaw yi nga xam ne jamono ji danañ dem ngi gën a jege Turquie rawatina Adana Demirspor mais aussi aussi information service du côté de Valence Valence bi nga Cavani du côté de Boca Juniors donc Mbaye pour l'instant mais aussi il s'est proposé du côté de Valence Valence n'a pas encore donné sa réponse on ne sait pas mais Turquie a a a de vie ak xam loo bëgg lolé problème mom dafa xaw a niroog Neymar tuuti côté boobu mais aussi le record des meilleures euh, ventes ci walum mercato bi ñi ëpp lu ñu jaay ak aussi prix yi gëna mak ñi nga xamne moy mooy donc Nicolas Jackson ak Boulaye Dia ils sont dans le top 10 ans ci vente yi nga xamne mercato Bachna, notamment du côté de la Liga Villarreal Real def na marché menen bi moy Nicolas Jackson d'abord, abord moo deuxième au classement ndax ki di Mateus Cunha moo nekk si kaw à 50 millions d'euros. Jackson 37 millions lañ ko jaayee Torres soog a ki nga xam mooy Boulaye Dia nag mu marché bi ndax 12 millions lañ ko daldi di ah Renan Lodi moo nekk à la euh, neuvième position Moussa ñew ci Chukwueze Griezmann Kang In Lee yek dal jëm ci kaw. gars yi nag li moo nekkoon information yi leen jox c'est toujours un plaisir de vous servir woy leen di like.